asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci sëriñ Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun ak mbooleem njabootu Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke gépp sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifa Cheikh Mahamadou Roqaya Mbacke ak mbooleem sëti maam Cheikh Anta yëpp alhaaji maam Omar Dia xalifa alhaaji Ibrahima Dia ak mbooleem ku askanoo ci kër alhaaji Ibrahima Dia sëriñ Abdul Xaadir ja xalifa sëriñ alaaji sëriñ Dia ak mboolem njabootu ak alaaji sëriñ Dia sëriñ Moustapha Dia xalifa maam Jabel Dia sëriñ Ibrahima Beyti Dia sëriñ Muudu Maamun Dia xalifa sëriñ Cheikh Dia ak mboolem ko askanoo ci Dia ak foom ci mën a askanoo sëriñ Samba Sow xalifa Baye Alhaaji Sow ñu gën koo miin ci sëriñ Jàpp Sow ak mboolem njabootu maam Abdoulahi Sow gépp ñooy am mbégte di leen yëgal bisu fàttaliku ak ñaanal seen sëriñ di seen waajur doonoon seen lépp di bi ñu daan amalal Alhaaji Ibrahima Dia ak seen maam ju baax ja alhaaji abdoulahi saw te seen wayjur bu baax wa daan ko def saw ñu gën ko waxe meen ci bay njàpp saw bis boobu nag ren jàpp nañ ko fukki fan ak juróom ci weeru rakki gàmmu ji dëppoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre ñu di ko amale nag fañ ko daan baaxoo amale ca seen kër ga nekk ca Pikine ñu di ko yëgal nag mbooleem ko askanoo ci nja ak foo ci mas askano di ko yëgal mbooleem njabootu Serigne Touba gi ak fu ñu mën a nekk di ko yëgal it mbooleem seexi Serigne Touba yi nag rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ kër Alhaaji Ibrahima Dia sëriñ Samba Sow ak ay rakkam daal ñu ne bàyyiwuñ kenn ci yëgli bi bàyyiwuñ fenn bis boobu nag ren jii dañ koo darajaale alhaaji Mbàkke jenn nekkoon mbokkum alhaaji Samba Sow ma ñu bokkoon alhaaji Ibrahima Dia mu dëkkoon ca Njaareem daan liggéeyal sëriñ Tuubaa te buntam di alhaaji Ibrahima Dia ñu ko yëgal mbokk yépp nag bàyyiwuñ ca kenn koo xamante ni bii rek yaa ngi laal ca alhaaji Mbàkke jenn di ñaan suñu borom boole leen ngërëmul yàlla ak loolu yonent bi ak loolu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul danañ fa nag amal njàngum alxuraan bu ñu xëyee ci njiitul sëriñ Mamor Dia waaye mu di ko ànd nag ak ki nga xamante ne bii mooy imaam Serigne Modou Gueye ca jàkka yi murit di ko yëgalit nda fa mbooleem jàngkatub alquran mën a ne ci biir réew mi di sàkk loo man ci alquran nga jàng ko rawatina daaray kaamil ja nekk ci daaru salaam ak Serigne Asmor ja mi nga xamante ne bii moo cay taxawee ak ñam ko àndal ñëpp di ko yëgalit nag Serigne Mamor Mbacke xam se diine mi nga xam ne at mu jot mooy def waxtaan wa njabootuk alhaaji njàpp saw daal nee ne bis boobu ñu ngi koy yëgal ñëpp nag di ci séntu ñëpp di ko amal insha allahu rabbi euh, euh, samedi le 15 ci rakki gàmmu dëppoo ak la vingt 21 ci weeru novembre ñu di ko amale nag ca seen kër ga nekk ca Pikine di ci séntu ñëpp nag di ñaan képp koo xam ne teew nga fa yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo ci barkeb Seyxuna Ahmadul Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu